directrice centre de recherche et d'action sur les droits économiques sociaux et culturels bi nga xam ni membre mbooloo mi tudd Oil Watch te nekk ci biir Afrique euh, la fii di ko représenté fii ci Sénégal Oil Watch nag day mbooloo bi nga xam ni dafa tënk lu ëpp euh, téeméeri organisation kuréel organisation de la société civile ñi nga xam ne ñoo ngi tasaaroo ci lu ëpp ñaar fukki réew ci biir Afrique te di réfléchir ak euh, di xeex li nga xam ni moom mooy exploitation euh, des ressources fossiles ci biir Afrique surtout bu dee exploitation boobu du jëmale Afrique ci kanam. seen bi lu muy tekki décoloniser l'énergie de l'Afrique. waaw bi moom mbirum déjà colonisation je pense que ñëpp xam nañ ko ci histoire Afrique. li nuy wax mooy que nanu fexee ba exploitation ressources yi bu doon am du nekk ci modèle yi nga xam ni de perpétuer li nga xam ni moom moo nekk colonisation bi colonisation lan ci lan la tegu woon mooy ma foqati yóbbu euh, développer sama réew au lieu que ma développer réew yi nga xam ni foofu laa jëlee mbir mi nga xam ni moom laay jëfandikoo donc nu fexe ba nga xam ni exploitation ou bien accès aux ressources énergétiques bu doon am na doon bu mu nekk ci modèle yi nga xam ni ñi nga xam ni ñoom ñoom moom ressources yi duñ ko jëfandikoo wala duñ ci gis seen bopp day nekk un modèle colonial bi nga xam ni dafa extraverti maanaam dañuy jël rek di tibb di yóbbu feneen te ñi ko jël di tibb di yóbbu feneen aussi ñoom lu ñu ciy xool mooy naka la ñu jëmee kanam naka la seen réew yi jëmee kanam mais communauté yi nga xam ni ñoom ñooy dund mbir mi fu ñu koy jëlee duñ ci gis seen bopp. donc loolu moo tax ñu wax ni danu war a décoloniser l' énergie euh, de l' Afrique maanaam bu ñu extraire ressources énergétiques Afrique yi donc pour développer yeneen réew bàyyi Afrique noonu. concret Euh, déjà dañu jàpp ni par exemple énergie fossile du Afrique kese mooy problème bi si tépp si adduna bi wane na ni que exploitation énergie fossile bi li nga xam ne moom mooy jëmale àdduna bi kan ci kanam ndax gis na nu changement climatique yi changement climatique yi tey mu ngi e-, exemple yu ñu ci mën a am mooy gis na nu inondation yuy am gis na nu par exemple ay ay ay dëkk yu ñuy toxal ndax euh, boo demee Bargny fii daa ko gis boo demee Saint-Louis dégg nañu affaire euh, Langue de bi problème yi fa am ñooy gis problème yu bëri yi nga xam ne c'est lié au changement climatique donc loolu aussi boo jëlee changement climatique li nga xam ne dañ ko tuddee énergie fossile da ci am impact bu bëri moo tax ñu ni dañu war a won gannaaw li nga xam ne moom mooy énergie fossile yi boo déggee énergie fossile nag mooy pétrole mooy gaz mooy charbon mooy autre énergie fossile yi nga xam ni ah, réew yi daawoon nañ ko jëfandikoo te loolu yëpp aussi gis nañ ni plus ñuy gën a exploiter plus par exemple nappkat bi sàmmkat bi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox campagne bi te amuñu lu dul loolu pour dund duñ ci gis seen bopp te liñ leen di dig mooy daa ngeen am accès si énergie moo tax tey nu jajale fii nit yu jógee si réew yu bëri ñi nga xam ni déggoon nañu discours boobu si njëlbeen ba mais tey bu buñ la waxee seen expérience communauté liñ fa gis mooy gën a am njàqare gën a am tiitaange gën a am pauvreté di gën a dellu gannaaw plutôt ko di jëm kanam donc moo tax aussi expérience yooyu partagé ko am ñi nga xam ne dañuy tàmbale réew yu mel ni Sénégal dafa am solo. ko def fii tey. Sénégal mooy premier réew Afrique francophone bi nga xam ni euh, assemblée générale Oil Watch mu ngi fii am après daaw ñu ngi ko defoon Ghana defoon nañ ko Nigéria def ko si yeneen réew yu bëri mais Sénégal mooy premier réew parce que ñun ñëpp xam na ni jamono yi depuis quelques années quand même Sénégal découvrir na ay ressources yu importantes li nga xam ni si pétrole bi la si gaz bi et tout cela te loolu yëpp aussi dafa war a indi benn débat bi nga xam ne dañ ko war a poser de manière ouverte nga xam ni bu moytul après déception lay indi comme nu mu indee déception si yeneen réew yi moo tax ñu ni il faut que aussi yeneen débat yi nga xam ne ñeneen ñu ngi koy jël di wax ne lii xëy na baax na xëy na baaxul ñun aussi nañ ci bokk si débat yooyu ba mun a ràññee lan moo ci baax ak lan moo ci baaxul te ñu mun moytu li nga xam ni moom moo dal ñeneen ñi aussi mu dal nu boo demee tey Nigéria fële si delta du Niger Shell mu ngi wax ni day génn bu génnee day nettoyer wala yoon si boppam lu fa def baaxul communauté yooyu tey boo xoolee seen i dundin sax at yu nu doon dund dafa wàññeeku boo ko comparé ak communauté yi nga xam ni xamuñu woon lan mooy exploitation pétrole boo jëlee seen mbirum wor gu yaram dafa am problème boo demee bayatunu nappatunu yooyu yëpp day problème yi nga xam ni jaadu ñu wax ko askan bi pour que ñoom aussi ñu xippi seen bët euh, gën a xam fi nga xam ni foofu la ñuy teg seen tànk pat tey bu ñëwee yàq tourisme local bi yàq agriculture bi yàq pêche bi euh, xale yi di jël gaal yi di continuer ci immigration bi rek di dem loolu aussi indiwul développement réew mi donc yaakaar na ni Sénégal aujourd'hui toll na ci niveau bi nga xam ni am ci genre débat di lu war a mën a jaadu la Je suis Kwame Kondjo, je suis euh, membre du comité exécutif de All Watch Africa et aussi euh, je suis je travaille pour le Centre pour la justice Togo qui est membre de All Watch Africa. Décoloniser l'énergie de l'Afrique, Alors, euh, décoloniser l'énergie de l'Afrique, euh, c'est cette euh, thématique qui nous rassemble ici pour réfléchir sur comment est-ce qu'on peut sortir des griffes euh, du colonialisme et euh, vous n'êtes pas sans savoir que depuis fort longtemps, l'Afrique est devenue un, euh, un marché euh, d'extraction du pétrole, du gaz, et qui ne bénéficie jamais aux populations. Et, et donc, euh, c'est un trait du colonialisme qui est ressorti même euh, l'exploitation du pétrole, euh, la recherche du profit, euh, l'exploitation du gaz, a emmené la colonisation et ça a continué par nourrir la colonisation. Donc on doit se décoloniser. Et donc l'accès à l'énergie devient très important à l'Africain. Donc si bien que on se dit qu'on doit se retrouver, réfléchir davantage, trouver des voies et moyens pour attirer l'attention des gouvernants, attirer l'attention des multinationales qui détruisent l'Afrique à travers l'extractivisme. Et, et, et, à partir donc euh, de, de cela, trouver euh, des solutions qui puissent amener les populations à avoir plus accès à l'énergie. Donc c'est voilà l'essentiel le, de ce thème. de voies et moyens, qu'est-ce que nous avons déjà commencé par euh, faire euh, du plaidoyer parce que euh, nous sommes en train d'entretenir. Euh, nos entretiens vont à l'endroit des, gouvernants et nous leur disons clairement qu'on ne peut pas suivre le même modèle que l'Europe a suivi en termes de développement. Et donc notre développement doit être conçu sur des réalités africaines. et donc à travers des plaidoyers, à travers euh, la mobilisation des communautés, à travers les recherches, euh, nous construisons la campagne, euh, nous construisons des plaidoyers pour euh, faire ressortir les réalités africaines et aussi pour dire euh, nos solutions. À, à, à lieu place de l'exploitation du pétrole, du gaz pour l'énergie, on se dit qu'il faut une euh, transition énergétique qui est juste, qui prend en compte les réalités des communautés, qui respecte les droits des communautés et aussi euh, que cette euh, énergie basée sur les renouvelables soit contrôlée par euh, les populations. Parce que on s'est rendu compte que ce système actuel basé sur les carbones euh, est un système d'exploitation non seulement de l'homme, mais aussi de l'environnement. Oui, il faut, il faut dire l'histoire. D'abord, euh, bien avant même que cette exploitation du pétrole et du gaz euh, euh ne commence, l'Afrique euh, euh, a une base économique, l'agriculture, et, et, puis euh, aussi à ce, ce, petit système de l'accès à l'énergie que l'Afrique développe, la biomasse traditionnelle. Et, et, et donc, nous nous disons que les communautés peuvent se prendre en charge, même quand on se libère de, l'énergie basée sur le carbone. Les communautés, les populations peuvent se prendre en charge en développant euh, des, petites, euh, euh, des petits systèmes de transformation énergétique euh, basés sur euh, euh, le soleil, le, le vent, etc., qui soient contrôlés par eux-mêmes. parce que euh, nous ne voulons pas que véritablement le, le système d'exploitation puisse continuer dans la transition euh, énergétique juste. Donc nous, nous pensons qu'en mobilisant ces communautés, en leur donnant des techniques, euh, et, et elles peuvent euh, euh, se prendre en charge en termes d'énergie. réflexion Oui, euh, c'est vrai que euh, nous avons appris qu'il y a euh, le gaz qui est découvert euh, au Sénégal. Et donc c'est pour que nous puissions euh, attirer davantage l'attention des gouvernants sur ce qui se passe dans d'autres pays africains, le Nigeria, le Ghana, le Tchad. Mozambique, l'Afrique du Sud, sur les conséquences euh, de ces fossiles Euh, et aussi attirer l'attention des populations euh, sénégalaises sur euh, ces dangers et qu'ensemble, c'est ensemble que nous puissions lutter contre ces énergies fossiles-là. Et donc, nous sommes convaincus qu'en choisissant Sénégal pour notre conférence, euh, vous les journalistes, vous allez, vous allez relayer euh, les informations, vous allez dire ce dont nous avons parlé ici, justement, insisté sur le fait que euh, les fossiles ont une conséquence sur l'environnement et sur euh, les peuples. Et donc, nous devons penser à ne plus faire des recherches, investir pour trouver des fossiles, des, les, les, gaz, le pétrole, mais plutôt pour investir euh, dans les énergies renouvelables qui profitent plus Euh, à la population, et, mais les pratiques sont en harmonie avec l'environnement. Et reflète le sentiment des Africains d'être expoliés de leurs ressources. Tout le monde dit qu'il faut décoloniser l'énergie de l'Afrique. Les Européens ou le monde occidental, Dieu a fait que nous avons des ressources sur Terre, nous avons une jeunesse exaltante, nous avons la nature généreuse. Et le problème est qu'il faut décoloniser et décoloniser passe par d'abord une, for une forte éducation. Par exemple, créer des institutions où les gens apprendront à gérer l'énergie à partir de nos ressources qui, qui ne se tarissent pas. Le soleil, c'est illimité. Euh, la marée motrice des océans, c'est illimité. Le vent, parfois, c'est illimité. Parfois, ça va, parfois, ça ne va pas. Mais ça, ça ne devrait pas faire que nous dépendons exclusivement que du pétrole imposé depuis la Seconde Guerre mondiale pour vaincre l'Allemagne. Et ce pétrole-là, quand même, a poussé le monde à avoir un progrès, mais a réchauffé tellement la Terre que nous, nous avons un sérieux problème. C'est le problème du réchauffement climatique, c'est le problème des océans qui et de ce fait les émissions de carbone de nos voitures, de nos industries ne sont plus absorbées par les océans. Hmm? Et de ce fait, nous, avons, nous des catastrophes, climatiques, c'est-à-dire que beaucoup d'évaporation, beaucoup de chaleur, beaucoup de pluie, beaucoup d'orages, beaucoup de dégâts. Nous aurons des problèmes que la façade africaine, toute la façade africaine jusqu'au Cap, C'est des gisements, ça on le sait, c'est des gisements de pétrole enfuis sous la mer, 2500, 3000 mètres, et que les Africains doivent faire attention parce que c'est la zone de reproduction, c'est des pays chauds, de reproduction de tous les poissons du monde et après leur migration vers l'Europe. Donc les Africains doivent faire attention pour ne pas détruire aussi ce patrimoine par cette exploitation à de grands, de gros risques et même les États-Unis ont interdit leur façade atlantique d'exploiter profondément les ressources.